dara jarul fàtte yàlla. dara jarul fàtte yàlla de. métier moo mën a métier woo rek. métier moo mën a métier woo. ba am sa wéy waay. ba am ca loo wéy. te dellu ci sa borom di ko topp. te dellu ci sa borom di ko topp. rek loola baax na. loolu moom baax na. waaye loo def nag ba mu tax laa fàtte topp yàlla. waaye loo def ba mu fàtte loola topp yàlla. loola musiba la ci yow. loola musiba la ci yow dara du la ci mooy. soo ko tegee xéewal musiba la. soo ko tegee xéewal it musiba lay da ci yow. moo tax yàlla na ne am na ci seen i jabar ak seen i noon. looloo xam na ci seen jabar ak seen doom seen noon. mooy nga soxla leen bu bàyyi yàlla. mu wax ne am na ci seen i jabar ak seeni doom fitna. mu wax ne xam na ci seen jabar ak seen doom. fitna la. mooy rek mu dox sa digganteeg la sa digganteeg sa borom. mooy mu dox sa digganteeg la sa digganteeg sa borom. su boobaa rek jaru ko. su boobaa daal jaru ko. da def li la war sa digganteeg sa borom. na nga def li la war sa digganteeg sa borom. na nga def la dem ci jabar ak doom. soog a dem nag ci jabar ak doom. jabar na def la ko war digganteem ak boromam. jabar na ko a jublu ci jëkkëram. soog a jublu ci jëkkëram. doom na topp boromam def la ko war digganteem ak boromam. doom na topp boromam def li ko war digganteem ak boromam. soog a sàkku ngërëmal waajuram. soo ko sakku ngërëmal wàjjutam. taalibe na def la ko war diggante ak borom. taalibe defal li la war sa diggante sa borom. soo ko sakku ngërëmal sëriñ bi. soo ko sakku dina ñett. seen ngërëm baax na lool. seeni ngërëm. bay baax na lool. waaye na fekk nag nga jiital yàlla. waaye na fekk nag ngërëmal yàlla jiitu. ku sakku jigéen ju sakku sa ngërëmal jëkkër ba bàyyi xàq yàlla. jigéen ju sakku sa ngërëmal jëkkër ba bàyyi xàq yàlla. taalibe bu sàkku sa ngërëmal sëriñ ba bàyyi xàq yàlla taalibe bu sàkku sa ngërëmal sëriñ ba bàyyi xàq yàlla doom ju sàkku sa ngërëmal wajur ba bàyyi xàq yàlla doom ju sàkku sa ngërëmal wajur ba sànk xàq yàlla wajur wa du la dara sëriñ ba du la dara jëkkër ji dara wajur bi du la na ngeen ko xam bàyyi mu ne loolu nañ ko xam yàlla jiitu ci jaam bu nekk jaam bu ne yàlla jiitu ci yow moo gën a xëy ñëpp ci yow. yàlla gën a xëy ci jaam bu nekk. yàlla moo gën a xëy ci jaam bu ne. gannaaw bu mu wee nag. gannaaw bu yàlla wee. ak waajur lu yàlla reyal la. te waajur lu yàlla reyal la. gannaaw te jëkkërit lu yàlla reyal la. Eh, sëriñ itam waajur la moo gën a waajur la. sëriñ maanaa la. waajutu maanaa la. waaye nag. waaye. yooyu yëpp balaa ñoo yooyu yëpp de balaa jëriñ. yàlla jiitu rek. na yàlla jiitu. sëriñ. sëriñ. dañ koy wax rek te xamuñ ko. bàyyi ne dañ koy wax rek. te xamuñ luy sëriñ. ñu bari xamewuñ ak taalibe ak ak ndag. ñu bari xamewuñ ko taalibe ak dagu ji. taalibe. taalibe nag. mooy ku bëgg yàlla. moo di ku bëgg yàlla. seet ku ko gën a jege yàlla. seet ku moom. mu àndoo moom. ndax mu xëcc ko ba jegeel ko yàlla. waaye sëriñ boo xam ne daf maa neex rek ma ànd ak moom. waaye neex rek ma ànd moom. kooku buur la booy dagu rek. loolu day buur la booy dagu. doo taalibe moom du sëriñ. taalibe moom. ma bon doo taalibe moom du sëriñ. booba nag kon yow doo taalibe moom du sëriñ. ak cëriñ ak ak ndag bokkut. ak cëriñ ak ak ndag bokkuñ. bu fekkee yaa moom sa bopp. bu fekkee ne yow yaa moom sa bopp. te amoo soxla dara ëllëg ci àllaaxira. te amoo soxla dara ëllëg ci àllaaxira. kon de sooy boo seet ku la neex rek. kon de booba seeti ku la neex. nga ne kii ma neex neex moom laay topp moom laay def sëriñ. waaye su fekkee da ngaa bëgg dara ci yàlla. waaye boo bëggee dara ci yàlla nag. seetal koo xam ne. na seet koo xam ne. waxam daf lay fàttali yàlla. bu waxee mu fàttali la yàlla. nga àndoog kon nga jege yàlla. budul loolu du sëriñ da ngay dagu. budul loolu du sëriñ da ngay dagu. ñu gën a bari daal dëgg-dëgg ay dag lañu waaye duñu sëriñ. a bari daal dëgg-dëgg ay dag lañu duñ taalu bi. sëriñ bari tam buur lañu wala yàlla lañ sax. sëriñ yu bari buur lañ wala sax yàlla lañ. du du duñ sëriñ. duñ sëriñ. yal nañu yàlla musal ci loolu. yal nañu musal ci woowu melo yaara bi. yonent bi fa ne. yonent bi daf ne. Fatimatu doomi Muhammad. Fatimatu doomi Muhammad te na ne moom la gënoon a bëgg ci mbindeef yi te na ne kat mboolem mbindeef yàlla yi moom la ci gën a bëgg Usaamatu doomi seet Usaamatu doomi seet daf ne gannaaw Faatimatu moom la gën a bëgg ne gannaaw Faatimatu kooku la gën a bëgg laaj leen ma ci sama alal lu leen neex laaj leen ma ci sama ma jox leen waaye pour alaxira jëfal leen seen bopp du ma leen waaye bu dee alaxira nag jëfal leen seen bopp dara ma leen ko faa bu nit ñi ñëw ak seen i jaamu yàlla yéen ngeen ñëw naa ñëw yonent bi bokk dara la leen di jëriñ bu fa nit ñi ñëw ak seen jaamu yàlla indi wu leen dara lu mooy maa yonent bi bokk loolu du leen fa jëriñ dara ndéem yonent bu foor bi nga xam ne moo tax ñu bind àdduna alaxira mooy wax loolu ndéem yonent bu foor boobu nga xam ne moo tax yàlla bind àdduna alaxira mooy wax ñooñam loolu sakka keneen ku doon moom sakka nag keneen ku doon moom te kenn jógewu ko man de lii ma leen di tegtal rek laa leen mën a jëriñ bàyyi mu ne moom day lii mu ñuy tegtal loolu ñu mën a naxut ñu nag te moom lay defit pour bopp te lay defit pour boppam ban nag su leen ko tegtalee rek naxuma leen kon kat bu leen ko tegtalee moom wàcce na yéen a ci def nag topp mbaaba rek xamuma nag kemtalaayal li ma xam mu ne xamut nag kemtalaayal lim xam mbindeef mu mën a maye ci dara mbindeef moo xam ne mën naa maye ca magasin yàlla ya dara. wala mbindeef moo xam ne dana dem sàkk ca magasin yàlla ya. wala mbindeef moo xam ne dana dem sàkk ca magasin yàlla ya. xamut ñu njëkk ak ñu mujj. bàyyi mu ne loolu day xamut ñu njëkk xamut ñu mujj. yonente yi nekk ak wàll yi. yi ñoo fi nekk ak wàll yi. ci yàlla dara lu may jaamu ko ak ñaan ko. xamuñ waaye kuy dem ca magasin yàlla sàkk amul. waaye kuy waaxu dem ca magasin yàlla sàkk kooku moom xamut. waaye ku koy jaamu di ko sakkoo jegeñ lu. waaye ku koy jaamu. di ko sakkoo jegeñ lu. ko tudd guddeeg bëccëg. di ko tudd guddeeg bëccëg. ah kooku su ko ñaanee mën naa mu déglu ko. kooku day man naa am ko ñaanee mu déglu ko. te ñaanal sa bopp. te ku ñaanal sa bopp. sax ku ñaanal sa mbokk ñaan ngaa gën a gaaw. sax ku ñaanal sa mbokk ñaan ngaa gën a gaaw. loolu am na njëriñ. loolu am na njëriñ. kandoo mën naa jëriñ loolu itam. kandoo it mën naa jëriñ loolu. waaye nag kuy dem ci magasin yàlla yi waaye kuy dem ca magasin yàlla yi sàkk rek xamul loolu day xamul jox ku ko neex kuy demit sàkk ci jox ku la neex loolu it